ñu ñëw ci dëkk bu tedd bi fii ci Njaasaan ànd fi ak délégation bu am solo di délégation ànd dooleel daara waaye ak délégation bu El groupe sopp na bi ñu xam El Hadj Mor sopp na bi yàlla def mu jiite groupe sopp na bi waaye ànd ko ak doole daara ñi ngi seen imaam sa Gueye Serigne Sidi Muxtaar Kunta mi nga xam ne tey moom moo ñu dalal fii ci Njaasaan nga xam ne mooy bunt bi waaye ànd ko ak Serigne Dame Sakho imaam Omar Dem ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ni moom la yàlla dogal muy mag ci El Hadj Mor sopp na bi nekk seen xalifa waaye ànd ak oustaz Mouhamed mbay mi nga xam ni moom mooy euh, porte parole bu groupe sopp bi yor kàddu El Hadj Mor Gueye Sopp Nabi ak Abdoulaye Sey mi nga xam ni moom mooy le coordinateur bu groupe Sopp bi international ak El Hadj bi du bokk ci staff elage Hadj Mor Gueye Sopp Nabi ak ki nga xam ni moom mooy Babacar Mbeng ñu gën ko xam ci Morde bokk ci délégation bi ñi daal ñooy njabootu El Hadj Mor Gueye Sopp Nabi ñi nga xam ne tey ñëw nañu fi ci Njaasaan ci xadara bi ngir tàggu kilifa yi waaye ngir yëkkati kàddu ak message mi nga xam ni moom la ñu war a jël jagleel ko ki nga xam ni moom mooy xalifa bi gannaaw Mamour Gueye sopp yëkëti waat lu tollu ci 15 millions def ko grand prix régional bu El Hadj Mor Gueye sopp bi ñu ngi ni and ak délégation bu am solo ñëw fi ci Ndiassane xamna inshallah incha allah eh, ci kàttanu yàlla danañu and ak yeen ci lepp lo xamni xewna ci bërepp bu tedd bi lepp dañ fexé ba lepp lo xamni xewna ci eh, bërepp bu tedd bi di Ndiassane ngir ñu mën ci and ak yeen way mu nekk ay kàddu message ñi ngi seen Serigne Sidi Mokhtar Kunta and ak délégation bi ñu seen ci imam Idrissa Gueye ak ki nga xam ni moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane du c'est Babacar Meng ñi teewal fi staff bu El Hadj sopp na bi daal mooy délégation bi nga xam ni euh, ñu ngi dugg si noonu nag fas yéene dem ngir saafonte ak xalifa bi waaye fas yéene ngir saafonte ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bu tedd bii di Njaasaan tabarkalla ñu ànd ak délégation bu El Hadj Mor sopp na bi ak ànd dooleel daara bu imam Idrissa Gueye ak gannaaw bis bu am solo bi nga xam ne dañ koo jël daat koy jagleel alquranul karim muy grand prix régional bu El Hadj Mor Gueye sopp na bi délégation bi ñoom ñooy dugg si noonu ñu leen di dalal ci résidence Cheikh Mohamedou Kunta ñu ngi gis imam moom mooy saafonteel noonu ak délégation bu am solo bi nga xam ni ñoom la fekk fii ci dëkk bu tedd bi ci dëkk bu tedd bi fii bu ko defee rek ñu ànd ak ñoom Serigne Papa ñëw ak délégation bu El Hadj Mor sopp na bi ñu gis euh, nga xam ne moom mooy porte parole bi euh, imam Idriss dir ko nuyoolee délégation bi ñu ngi nii Abdoulaye Seye la ko njël ñun jàkkaarloo ak nga xam ni moom mooy porte parole porte parolu xalifa général

asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. bi ñu lay nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel mu mel ni délégation bi ñu àndal ñëw fi dañoo ànd ak Njaasaan ñëw ñëw Cheikh Sidi Mokhtar Kounta ñu ku ne xam na tax bokkam ci Njaasaan